mbokk yi jërë ngeen jëf ñëw nañu dellusiwaat ci seen émission jant bi eh, ci seen site BTV oustaz maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar. xaaju tey maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di la ziar man dama naa lool nag. mais maa la raw maa la raw wax mbokk internet yi ne seen xarit Oustaz Souleymane toogaat na jàkkaarloo ak yoon Oustaz dañu nekk ci jamono joo xam ne ñëpp dañoo dëgmal tabaski. Mhm. tabaski nag lu ne ci xet. Mhm. alors tey bëggoon nañu xam. Mhm. Euh, euh, yenn comportement yi nga xam ne. sunu sunu sunu sunu sunu euh, jigéen ñi. sunu sunu sunu yaay sunu rakk yi. ñu ngi koy doxalee lépp rek ngir seen tabaski mën a neex. alors tey ji Oustaz lan nga ñu mën a wax ci loolu eh, ki nga xam ne tey jii maanaam. Euh, bëgg lu mu am ci tabaski bi rek jaral na ko mu def naka sudul noonu. waaw xam nga bi tey wax nga loo am ama am solo mooy euh, euh, lan la ñu mën a def pour suñu tabaski war a neex. neex yow ku la ku bi tey la neex loo tabaski <laughs> ku la ko neex loo. <laughs> wax dëgg yàlla tabaski kan moo la ko neex loo. yaw mbokk bi yow laa waxal yow mii di ma seetaan kan moo la tabaski pour mu neex la. ah kon tabaski du pour mu neex. déedéet. ah léegi pour lan la. waaw mais Sénégal ni ñu koy defee bi tey xam nga bi tey dafa lu ma naqari tey. te fii daa koy waxee ci BTV. dafa lu ma metti trop trop mooy jigéenu Sénégal lu tax ñu yab ñun góoru Sénégal ñun góoru Sénégal bi tey pourquoi jigéenu Sénégal yab ñu yab goo xam ni am na fu mu tàmbalee amul fu mu yab te balaa ñu ñoo gën a yab rek tabaskee ñoom lu tax nga wax loolu. bu tabaski ñëwee ñun góoru Sénégal kenn dootul nelaw bu tabaski ñëwee ñun góoru Sénégal kenn dootul ànd ak sa sago bu tabaski ñëwee ñun góoru Sénégal kenn dootul ànd ak sa xel tey Mohamed bi tey nga tudd. Mhm. tabaski mooy ñëw ñu laaj la noo tudd nga ni Souleymane laa tudd. ndax jar ndax jommi bi tey te jommi gi kenn tegu la ko ku dul suñu soxna yi. Mhm. bi tey suñu soxna yi ñoo ñu teg teg pression boo xamante ni góor ñu bare mais mais góor ñu lu tax ñu bëgg a ñàkk fayda ñu baal ma àq ci ñi ma ko war wax ak ñi ma maasa. Mhm. lu tax ñu bëgg a toll ci dimension boo xam ni par force par la force jigéen ñi dañuy yilif ndax tabaski wax nga lu am solo pour mu neex. wax nga baat bu riis nag ndax tabaski yàlla da ko def pour mu neex shukrullahi taala ala ma anhamana minal bahimatil anhami yàlla moo ñu def rek xéewale lu ñu tàggatal ñu lii nga xamante ni mooy xar ak ñu mel ni ñoom ñu ciy def lum ñu neex di ci noos mais intention bi loolu tax koo jóg bi tey góor ñi sonn nañu ndax seen jabar yi góor ñi tàyyi nañu góor ñi maar nañu góor ñi jaxasoo nañu bu tabaski jotee góor ñu bari dañuy dof complètement mbokk yi fan la tegu yéen jigéen ñi fan ngeen teg li nga xam ni yéen a koy sëf seen borom kër yi dañoo mënta wax góor ñu bari jaay nañu seen ngor am na ñoo xam ne bi tey seen boru tabaski daaw jéej ba tey fayuñu ko ku la ko teg sa jabar bu ñu waxee ngeen ni génn seen kër yi bu ñu waxee ngeen ni après da ngeen takk seen balaa dem leen ñibbi ba xam ku ko yëg demal ñibbi yow kumba wala yow faatu wala yow xadi wala yow zeynabu wala maymuna demal nga ñibbi seen kër ba xam ba xam du ma tax duma ma damay tabaskee li ma yàlla defal damay tabaskee li ma yàlla jox damay tabaskee li ma mënte attan ko te charia ni ma Souleymane ma ni ko naam mu ne ma moom charia de mooy wax ak man nañu bàyyi suñu jabar yi suñu xo goro yi ba pare boo ñàkkee fayda na ci ñoo xam ne dañuy jëndal seen yaayu jabar xaru tabaski seen yaay doo am jëndal sa jabar tabaski sa sœur doo am jëndal sa jabar tabaski yow amuloo tabaski an sa xaru tabaski moo tax comportement yi nga wax xaaji bi tey ñu war ko suivre bu baax a baax a baax a baax war a xam fan la ñuy teg suñu tànk ci ci ci ci xaydul adha al mubarak day fet boo xam ni yàlla moo ko barkeelal mais warul jur fitna Sénégal benn borom kër tëddatul nelaw ba yàndoon tey ki nga xam ne bugg na moytuloo lan mooy waree fam pour nga xam ne rek tabaski na te coono googu yëpp du ko ci topp. jërëjëf xaaj bi tey xam nga xar soo amee six mois rek man na tabaski mais bi tey xaaj xaru six mois passé wul cent mille francs bu dee xar la attention dafa am xar ñun la bu amee six mois wala at dafa am bëy ñun la bu duggee ci benn at ba bay dugg ci ñaareelu at ba. dafa am nag ñun la soo amee ñaari at bay dugg ci ñetteelu at ba dafa am giléem ñun la soo amee juróomi at waaye ku fi tabaski bay wala nga fi tabaskee nag tabaski gi ëpp ci la ñuy tabaskee xaaj bu tey mm-hmm. mais xar la kon xar mi am six mois xaaj bi tey mais moom moom la ñu la xar moom boo ko amee mat na la tabaski mais loolu passé wul cent mille xaru six mois laa wax passé wul cent mille francs mm-hmm. jaaykat bi bu la bëggee dugal ci détail boo attanul bul nangu xamal ko ni ko tabaski yàlla soxlawul yàpp wu rëy wi yàpp wu ngand wi xaaji bi tey ndawal lu bari li intéressé wu ci sunu boroom yàlla wax nañu ko dawal jàngi alquran laajal ñi jàng alquran fas alu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamun boo laajee ñi jàng xaaji bi tey ñoo lay dimbali mais boo toppee ma riirandooyu ci coona ngay ne lan yunaala llaaha luhumuhaa wala dimaa'uhaa walakin yunaalu attaqwa minkum yàlla nee na li ma soxla mooy ragal yàlla gi ragal yàlla gi laa soxla ci yéen mais soxlawuma yàpp ndawal lu bari li yàlla nee na soxlawuma ci loolu yàlla nee na deret ji mais intéressé wu ma ci li ma ci soxla mooy ragal yàlla gi ngeen ci war a xool ak xool koosu tabaski lan moo ko waral soxna yi ñun góor ñi ñoo ko def ñun góor ñi xaaj bi tey ñoo tooñ suñu bopp parce que ñoo waxagul ba tey sunu soxna yi lan moo waral tabaski hmm. ah coow laa ngoog nag coow li foofu la ne nañu li jënti lu waral tabaski dañu waroon kër gu ne ñu fa taaw bi six ku ko am fere ko kon kon kon kay yow boobaa est-ce que di nga toog fii di wax bu doon ku fi toog ku fi tala toog ku fi wax di xar ci xar su boobaa six mois lay doon hmm. kon jamono bi ngay bi ngay naam jamono bobu lañ wax ne nañ la ray day na way bi tay 6 mois lañ wax ni ci bu doon bu doon tay luñu daganal la. Eh? dañ nan ko am 6 mois. Hmm. ku fi judd kon ci digënté bi. té hmm. tabaski amul bu doon nit la. ya ma laaj dé eh? dama ni bu doon nit la. Hmm. ku fi judd kon ci digënté bi té tabaski amul koko rëcc nga. waye ku fi judd mu leer la ni 6 mois net net net ci tabaski mat ñoo ñoy am problème. buñ koy balé sax ci taw yi rek. mais xar mu am six mois lañ la wax jàpp at mat na tabaski kon loolu waru jur problème xaaj bi tey. Mhm. waru jur détails yi mu jur. warul jur coono gii mu ñu jural ba tax na ñun góor ñi ñu baal ma àq xamuñu fu ñuy teg suñu tànk am na ñoo xam ne seen bakkanu jabara leen gën lu leen seen si man daal man daal am na lu ma jaaxal lu leen seen soxna yi wax lan la ñuy def. ah déet est-ce que du daa fu leen téye. mais bi tey du problème mu téye. Mm. góor warul gëm yooyu. góor wol borol warul ñak warul ñak diplomatie bi tay ba jigen di la tey ci xaru tabaski. man gis na fi ku tak ñaareel la ñew yendo nelaw. mais di nga yendo ndaw parce que amo maîtrise <laughs> bo takkee ñaareel ta amo maîtrise di nga yendo ndaw nelaw mais bo nee gentleman deug mel ni Oustaz Souleymane Diop xale <laughs> jigen ni mu ñu fa duggal ci detaay ah bu tay man gi gentleman la de guerrier la <laughs> d'accord gaay ñu dox dawuma ci de. benn soxna su may indil détail man Souleymane moo amul ci kaw suuf. moo amul ci kaw suuf. da ngay mën ñu communiquer teg ko ci gaam. d'accord li yàlla wax mooy soxlawul ndawal lu bari li. Mhm. yàlla neen soxlawul deret ji. Mhm. li mu soxla mooy ragal yàlla ji. gii xar la yàlla soxla. attention rey mu dee rey mu dee kenn du ko tabaskee. bu tey. Mm -hmm. ba dégg nga ma. dégg naa la xar moo xamante ne dafa pat. Mhm. kenn du ko tabaskee de. xar mu gumba. kenn du ko tabaskee de. Mhm. xar mu dof. Mhm. muuma. Mhm. feebar. ah charia nee boobu xar kenn du ko tabas xar mu yooy maanaam xar bi dafa yooy yooy ba amul graisse matul tabaski. xar moo xam ne bëjjin bi dafa depp dafa dafa soqeeku ca saxukaay ba. matul tabaski. xar moo xamante ni nopp bi dagg na. noppi boo calculer trois parties. Mhm. deux parties des na fa mat naa tabaski genn gi trois parties deux parties des na mat naa tabaski mais bu fekkee ne genn gi dafa dagg deux parties matul tabaski. nopp bi deux parties matul tabaski. kon xar yi nga xamante ni matul tabaski tam jar naa xam bi tey loolu fu ma doon dugg rek la pour wax ko nit ñi. mais historique gu tabaski. d' accord xaaj bu tey. Mhm. foofu doy waar. d'accord mais bala ñoo ñëw ci foofu. bëggoon naa nga wax ma itam. Mhm. ki nga xam ne tey jii dafa topp nafsu bakkanu soxnaam. Mhm. ah mhm. ba mu dem lebi. def lu mu mënul. tabaski ba noppi te fayul bor bi. est-ce que kooku am na tabaski. waaw xam nga ki nga xam ne dafa lebi. daa sonnal boppam. bàyyi xel li ko lislaam wax. topp li neex soxnaam. bu dee yaa ngi may dégg. dafa toppi moom li neex soxnaam. Mhm. ba tax mu dem lebi. charia leb gi la ko njëkk tere ni ko amuloo ci droit. Mhm. xam nga ndax charia lépp loo xam ne mënoo ko bi wàcc na la. diine lislaam laa lay wax. Mhm. lépp loo xam ni mënuloo ko xaaji bi tey wàcc na la bi dem nga màkka. dem nga. xam nga yow bi leer na la am ñoo xam ne yaa ngi leen gis. am nañu njëgu màkka. demuñu. dëgg la ñooñu loolu war na leen de. Hmm. am nañ ko mais defuñu ko defuñu ko. moo tax foofu tam doon sew sew boo xam ni ñaam alal te war dem màkka defuñu ko tamit yàlla mi ngi leen topp ci loolu. Hmm. muy benn hmm. mais kii moom dafa amul. charia ni la comme amul bul lebi comme xas nga nag lebi. di nga am tabaski. doo ñàkk tabaski de. mais teg nga sa bopp coono goo xam ne yàlla tegula ko yonent bi sa salaatu wasalaam. mu jar a bàyyi xel. kon li gën mooy amuloo wàcc na la. comme suñu borom teel na laa wax ne la lii amuloo ko mënoo ko waat na la yamal ci la la yàlla